الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñoo ngi nuyoo tey ziyaare tey ñaan sunu borom subhanahu tabaraka wa taala mu defal ñu jàmmi àdduna ak jàmmi alaxira te mu boole ñu ñun ñépp teg ñu ci yoonu siraatal mustaqim taray ñu ci bi jaahi rasulillahi sallallahu alayhi wa bu loolu jàllee ñu amaat yéene àndate yéen ci téere bi di masaalikul jinaan di téere boo xamante ne téere téereb lislaam la téereb lislaam la ndax xam ngeen ne islaam ñetti xam-xam yi ñoo koy jàngale te mooy tawxiid fiq tasawuf kon moo tax ñu ne téere bi téere bi lay jàngale moo tax ñu ne téere bi téereb lislaam la kon insha allahu moolaana ñu am yéene dimbali ko yàlla ci tàmbalee ci faslun fi tafsili ma tuammiru bihi l awqaat mooy jullit bi yim mën a dundale waxtoom yim mën a dundale waxtoom bu la neexee nga ne yim mën a duye waxtoom ak i jaamu yàlla moom lay bunt bii di jàngale mu wax ne wa akkadu nafla bu aydal maghribi sittan aw ni an xayri nabi mu wax ne jële nañ ci ki gën ci yonante yi yonent yi yàlla mës a yónni xam ngeen ne ñoo gën ci mboole mbindeef yi ñoom yonent yooyu nag ki ci gën nga xamante ne moom la yàlla yónni woon ci ñun lañ ci moom mu wax ne <coughs> feddali nañu lool ginnaaw boo sënmalee jullik timis ba noppi nga naafile nu mu néew néew nu mu néew néew nga naafile ñaari rakkaan nu mu néew néew nga naafile ñaari rakkaan kooku luñ sopp la niki noonu it taamu nañu boo sawaree ba sawar wala nga sawar sawar gu digg doomu nga naafile nga naafile <coughs> juróom benn rakkaan kooku luñ ko noon it taamu nañu lool bala ngaa julli tisbaar nga naafile ñeenti rakkaan ginnaaw boo sëlmalee julli tisbaar ba noppi nga naafile ñeenti rakkaan kooku luñ sopp la ni ko it taamu nañu bala ngaa julli takusaan nga naafila ñeent rakka wa hakada baada al isha wastaxsanu taxiyatal masjidi ba an bayyanu ni ki it boo ginnaaw boo sëlmalee julli gee taamu nañu lool nga naafile nga naafile mhm. melokaan wiñ ci gën a taamu nag mooy comme ni ñu koy defee ci weeru koor gi nii rek même bu weeru koor gi jeexee sax da nga kaa war a bu fekkente ne bëgg ngaa duy say waxtu ak i jaamu yàlla ba mu fees gan gan gan ko ki taalif bi daan defee ki taalif wax nañ ne maanaam guddi gi da daan duy ak i yàlla ba dell dell dell bëccëg gi mu duy ko ak i jaamu yàlla ba mu fees dell dell dell bokk na ci liñ gën a taaw mooy taxiyatul masjid taxiyatul masjid mooy lan mbokk yi su dee da dugg ci jàkka ci waxtu woo xamante ne terewuñ terewuñ ca naafila xam ngeen ne am na waxtu yoo xamante ne dañ caa siba naafile dañ caa siba naafile comme waxtu yi ñu toll nii rek jamono jii ñu toll ba keroog ngi sëlmal jullit timis dañoo sib naafile ci mazhabu Malik waaye nag bu dee da dugg ci waxtu jàkk woo xamante ne li mel ne masalan ginnaaw yoor masalan waxtu yoor yoor nga dugg ci jàkk dañuy taamu nga nuyu jàkk ji nuyoog naafile kooku lu ñu sopp la loolu lu ñu sopp la ni ko noonu seen rakkan soos yi ñuy wax witar benn rakkan la muy maanaam sunna su dëgëra dëgëra dëgër la loo xamante ne moom mot nay fonk mot nay fonk baax a baax a baax wax moom wax na ne mboolem julli sunna yi witar moo ci gën a dëgër moo ci mm-hmm. waaw mu ne wa raxabu fi rakaatayni lil fajar fa laysa tuqdaa gayruha fi mustahar ñaari rakaay fajar lay génne ko nii mu wax ne ñaari rakkay fajar day sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam daan na ko xemmam loo xeet wi loo xeet wi ba tax mu wax ne rakkaatal fajri xayrum min addunia wa ma fiha ñaari rakkay fajar ñoo gën àdduna ji ñu ne ak li ci biiram lépp kon lu mata lu mata lu mata kii la ñaareel ba it mooy ëpp naa sàggane fu ne lu ëpp sàggane la ndax ëllëg yowmal xiyaam xam ngeen ne mugal ya fay am mugal yay am yowmal xiyaam fu mu toll nii bokkuñu dañoo wuute yal nañ ci yàlla musal ñun ñëpp waaye am na ñoo xamante ne seeni bopp seeni bopp ay malaayka dañuy tiim ay dañuy yore ay doj tiim seeni bopp bàyyi mu dal ci bopp bi nga xam bopp bi day xaar ñaar xaaj bee dal ñii xaaj bee dal fee su ko defee sunu borom dajalewaat bopp bi malaaka yi dóoraat ay yàlla nañ ci mu musal ñooñu mooy ñi nga xamante ne dañoo sàggane woon waxtu fajar kon lu mat a fonk la lu mat a bàyyi xel la mu mel ne moom wax na ne nag sopp nañu bu fekkee téere fiqi moom naa wax ne boo ci jàngee boo ci jàngee faatixa kese mu doy asal loolu la wax ñaari boo ci jàngee faatixa kese kese kese baax na waaye sëriñ bi moom dafay dajee sopp ñu ñu jàng ci ginnaaw faatiha alam nasrah rakkam ñaareel ba ginnaaw faatiha nga jàng ci alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashaab nee na ku ko saxoo say noon duñ la mënal dara say noon duñ la mënal dara mu indi ci jëf yi nga mën a dundalee say waxtu ba tey mooy jullik yoor yoor jullik yoor yoor Sénégal mag ña ma daan jëflanteel gis naa ne moom fonkoon nañ ko lool lool lool ki ma yar ki ma yar woy juróom wu jigéen ni muy màgget màgget fu mu toll ni waxtu woowu daawu ko raw mukk fu waxtu yooyu jotee rek danga ko gis ndeysaan mu sukkandiku ci aw dokkam dem jàpp ñoo julli ko su ko defee liñ ci taamu ci ay rakkaa nag mooy ñaar bu la neexee juróom benn bu la neexee juróom-ñett waaye nag wurta weesu juróom-ñett bu mu bokk ci nga mën a dundalee say waxtu ba tey mooy wala boog muy wax ne su dee ne da saxal su dee ne da saxal saa yoo sëlmalee timis ba nopp nga julli ñaari rakka nee na sa jëf jooju na nga xam ne gaa yu baax yi sopp nañ ko lool lool lool mhm. mu wax ne su dee nag yow. ni nga baaxoo li nga saxal mooy jëf jëf nag bala moo neex sunu boroom dëgg mooy li nga ci jàpp nga saxal ko nag moo wax ne bu fekkee da ngaa saxal saa yoo jullee timis ba nopp nga naafile juróom benn rakkaan yoo xamante ne doxalewoo ci diggante bi jenn wax maanaam danga ngaa danga leen a sësale te waxoo ci benn moo bu bokk ci julli gi yow yaa ngi mel ne ku jaamu sunu borom fukki at ak ñaar. ci anam gu rafet ci anam gu sell subhaanahu wa mhm. mu wax ne ki nga xamante ne nag moom li mu saxoo mooy walla moo julli tisbaar dana julli ñeent rakkaa ñaar sëlmal ñaar sëlmal ginnaaw tisbaar mu naafile ñeent rakkaa ñaar sëlmal ñaar sëlmal kooku li mu koy jural mooy yaramam ci boppam lay sunu boroom di xaraamal sawara lay sunu borom di xaraamal sawara bu fekkente ne nag euh, dangaa saxoo saa yoo jullee tàkku bala ngaa julli tàkkusaan bokk nga naa fi la ñeenti rakkaa ñaar sëlmal ñaar sëlmal loolu li mu lay jural mooy yërmaane sunu borom day tax borom bi subhanahu wa tabaraka wa taala daal lay yërëm daal ne la jaaral nii tàbbi aljana nañu ko yàlla dafa ñun ñëpp mu ne wa man yuxaafid duhaa fa innahu yax yaxfaduhu lmawla wa yuli sha'nahu waxtu yoor yoor yi moo doon wax sànq képp koo xamante ne dafa sàmm wante ak moom sàmm wante gi du dara mooy mooy rek fu mu jotee rek nga naafile kooku ëllëg yamal xiyaam moo tax mu ne id fil qiyaamati tafi summa taqul yaa rabbi za fulaanu hablahu lusul ëllëg yamal xiyaam waxtu yoor yoor sunu boroom da koy sopp mu doon jëmm daal di ñëw ci suñu boroom ne ko kii rus ci ndax àdduna kat daf ma daf ma daan sàmmonte bu baax baax daan ma waggar li annahu xafadani fi dunya ba ñuy nekk àdduna daf ma waggaroon ma daan sàmm di ma bàyyi xel kon nag faxfadhu haahuna yàlla nga ko sàmm fii sunu borom namu ñaan ko ca saase daal di koy jéggal mu ñuy xamal nag ne naafilee yi ñuy def ci ci guddi naafile yi nga xamante ni guddi lañ koy la nga cay jàng lañ ca taamu mooy nga béral ko mooy nga béral ko waaye naafile yi ñuy def ci bëccëg nag lañ ca taamu mooy nga yalu ko mooy nga yalu ko mu ñu xamal ne nag ginnaaw buñ sënmalee jullik suba la ko dalee foofu ba keroog jant bi di fenk taamu wuñ ca wax xanaa waxuk jaamu yàlla ngay sàbbaal subhanallah ak yu ko ndur waaye ngay waxtaan lu jëm ci mbirum àdduna kooku dañ ko taamu wuñ ko daal rawante nag ngay nelaw rawante na ngay nelaw kooku lañ gën a sib moom mu ñu xamal ne nag yow bu dee danga ginnaaw fi nga sënmalee suba ba keroog jant bi di fenk dangaa toog di jaamu yàlla mooy di tuddi yàlla rek na la wóor na yaa ngi mel ni ko aji màkk te itam yaa ngi mel ni ko umra ci mbaaxuk sunu boroom subhanahu tabaraka wa taala su ko defee kon ñu ñëw ci buntu koor faslun fi sawmi mu ne amma siyaamu fa huwa min afdali ma talabta mardatan bihi wa nicma li anna fi ljannati baaban laa yaqib fiihi siwa ahli siyaami faxtasib mu ne koor ci nga mën a sàkkoo ngërëmal borom bi subhaanahu tabaaraka wa taala ci la bokk bu dee ne yow ngërëmale ngërëmal sunu borom daf laa ñor na nga xam ne kon koor bokk na ci li nga ko mën a ame mu ñuy xamoon ne aljanna kat am na yàgg lii moom yàgges na koo dégg ñun ñëpp mooy ne aljanna am na fa bunt boo xamante ne woorkat yi ñoo fay jaari tàbbi aljanna bunt bu mu ngi tudd baabu rayaan ñi daan woor kese ñooy jaari ci beneen bunt àjjana nag daa am ay bunt moom mm-hmm. am na ay bunt am na ñoo xam ne mënewuñu ci koor waaye mëne nañ ciy wax laa xawla wala quwwata illa billah wax nañ ne ab bunt la ci bunt àjjana yi képp ku koy sikar lu bëree bëree bari yow booy dugg àjjana ci bunt boobu ngay jaaree ak yeneen bunt bëri nay bunt mu ne wa kaana malikun imaamuna yudiim min kulli shahrin sawma addi xarfi ne imaam malik dafa aadawoo woon dafa saxaloon weer wu ne dana ci woor ñetti fan weer wu ne dana ci woor ñetti defee nag mooy su ko wooree ne bis bi mooy bis bi njëkk ci weer wi da koy woor su demee ba am ci weer woowu fukki fan ak benn mu woor ko su amaatee ci weer wi ñaar fukki fan ak benn mu woor ko te buñ ne lu baax loo def sunu boroom fay la ci fukk moom weer wi mu mu weer woor ci ñetti fan kon day mel ne weer wi yëpp da koo woor bu fekkee ne da koo saxal nag kon day mel ne ku woor dundam gi lépp Sayyidina Imaam Maalik radiyallahu anhu kon wooroon mu ne wa raghabu fi sab'ati al ayaami ani al ula taduuru am na juróom-ñaari fan yoo xamante ne day wëndeelu ci at mi juróom-ñaari fan yooyu nee taamu nañu lool ku leen woor mu di leen lim bi ci jiitu mooy juróom-ñeenteelu fanu weeru tabaski maanaam weeru tabaski maanaam mu ne juróom-ñeenteelu fanu tabaski weeru tabaski juróom-ñeenteelu fan ba bis boobu dañoo taamu lool ku ko woor woor goo xamante ni suñu borom kese mooy tax nga woor ko weeru màggal Kazu màggalu Kazu weer wi ñaar fukkeelu fan dañoo taamu lool woor ko weeru ci jëmmi bopp ñetteelu fan dañoo sopp ko niki noonu it fukkeelu fan ba sopp nañ ko ko woor weeru diggi mooy weer wi dox ci diggante kori ak tabaski ñu di ko wax weeru diggi weer woow yi ñaar fukkeelu fan ba ak juróom dañoo taamu lool ku leen woor weeru chambaan ba juróom taamu nañu lool ku leen woor weeru fan ba taamu nañ ko ko woor kon fan yi di leen bàyyi xel li leen fuglu buñ ci yegsi nga bañ mu raw la te di leen woor kooku moom am na solo mën na laa fàttal ay buntu ëllëg yawmal xiyaam ci kanamu rabbul izzati wal jamaal mu ne wa naqalu an nabiyi almustafa salla alayhi man hadaahu wastafa laha fadaila ajazna al aana an addiha huna forum idmaana fan yooyu mu ñu doon limal sànq laa xam ne am na ay ngeneel yoo xamante ne te ngeneel yooyu ñu ngi ko jëlee ci yonante bi de am na ay ngeneen yoo xamante ne wax dëgg yàlla mu nee su ko lim fii ci téere bi ngir bëri guñ bëri ba tax na ko dañ koy jàppal idda dañ koy jàppal idda mu ñu xamal na nag weeru rajab weeru rajab nga màng weeru nga màng màng mooy mbooleem weer wi yëpp nga màng ko woor ko daal maanaam weeru rajab nga woor weer wi yëpp kooku luñ luñ xemmam loo daan nañ ko xemmam loo xeet wi ni ki noonu weeru tam xarit tam xarit nga màng weer yépp wóor kooku lu am tiyaaba la ni ki noonu di weeru tabaski bu la wóoree ne tey mooy bis bu njëkk ba ci juróom ñeenteelu fan ba nga màng lépp wóorandoo kooku am solo la ni ki weeru yépp nga màng ko wóor ko kooku jëf ju am solo la mu ñu xamal ne nag Ashura Ashura ak Tasuwaa Ashura mooy weeru tamxarit fukkeelu fan ba fukkeelu fanu tamxarit moom la wax Ashura Tasu'a mooy juróom-ñeenteelu fan ba mu ñu xamal ne la fukkeelu fan ba moo gën juróom-ñeenteelu fan ba li tax mu gën mooy fukkeelu fan ba daa ëpp tiyaaba da ko ëpp aw yool da ko ëpp aw yool mu ne jële nañ ay yëf ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam yoo xamante ne taamu nañ lool ku leen def ci bisu Ashura Ashura mooy tamxarit mooy bu ñu lekkee cere ji ba ca suba ga suma jumul yiñ ci to yiñ ci taamu bokk na ci julli woor bokk woor jëmmi bis ba ci boppam nga woor ko te sopp nañ ci julli mooy ñaar rakkaan yooyu mhm. sopp nañ ci jokk mbokk sopp nañ ci cangu sopp nañ ci sangu euh, saraxe nga lelli say wax taamu nañ ko ci tus nga lu taamu nañ ko ci nga seeti ko tawat taamu nañ ko ci ziyaare boroom xam-xam taamu nañ ko ci ab girim nga raay bopp ba ngir wane ne am na ab nga yërmaane ci moom taamu nañ ko ci jàng junni ixlaas ci bis boobu yi taamu nañ ko ci niki noonu it euh, li nga daan jox sa njaboot nga yokk nga yokkal leen ko taamu nañ ko ci lool lool lool ci bis boobu yi mu ñuy xamoon ne nag sangu ci bisu Ashura moom wax nañ ne day dàq jàngoro day dox sa diggante jàngoro ni ki noonu yi tusngalu tusngalu damaa xamul na xam ngeen ko ndéet wax nañ ne tusngalu ci bis boobu bi day tax sunu borom fegal la ci ngumba day tax doo gumba mu ne li nga daan jox njaboot gi nga yaataleen ko nga yaatale leen ko bii yoon day tax borom bi subhanahu wa tabaraka wa taala dolli sa wërsëg mu ñuy xamoon ne rek Ashura Ashura mooy bu ñu lekkee cere ji ba ci suba moom la ñu wax am na ay mbir yu ca xewoon yoo xamante ne xawaatu ci beneen bis ci bis boobu mu ne fa fii xitaaba rabbuna ala mu wax ne fa fiihi taaba rabbuna ala abi basharihi aadama awwalu bi ci bisu Mansuura ci la borom bi subhaanahu tabaraka wa taala jéggaloon sunu baay aadama sunu baay aadama lu mu defoon ba tax sunu borom ba tax mu naan ci lañ ko jéggaloon mooy ni ko sunu borom wax ne garab gi bul ko jege laa taqrabaa moo ak sayyidat moo ak soxnaam soosi Xawaa bu leen jege garab gi ndeysaan ñu ñu ñu ñu ñu juum garab ga lekk ko ginaaw bi suñu borom jéggal leen boobu mi ngi tombeek bisu Ashura mu ne wastawati safinatu maaluma fa fiihi alal juudi yi mustaqima li muy génnee ko foofu mooy gaaluk sayiduna Nuh alayhi salaam Noox xam ngeen ne ab yonante la woon bu yàlla yónni woon xam ngeen léegi nag ginnaaw ba mu wootee te woote ba yàgg lool kenn gëmu ko sunu borom war a war aw xeetam tax mu ne ko defaral gaal gi ba muy ba mu defaree gaal gi nag ba mu yéeg moo ko ñi ko gëmoon ñëpp ginnaaw bi sunu borom labal ay nitam ba mu teeree nag wastawat alal juudi mi ngi teer ci benn doj bu ñuy wax al yi loolu mu ngi tombe woon ak ci bisu Ashura ne wa fiihi falqu baxrihi li Muusa xam ngeen ne sayidna Muusa alayhi salaam borom bi subhaanahu tabaraka wa taala xaraloon na ko géej gi xam ngeen nee na bu mu koy xaral géej gi nag ci bisu Ashura la la la la dajeel mu ne wa hakada wulida fiihi Isa sayidna Isa ci bisu Ashura ci la gane àdduna ci la ci la waaw ci la gane àdduna mu ne wa fiihi igraqun li firawna kada xam ngeen ne firawna dafa lab sunu borom dafa ka labal bis ba mu labee nag mu ngi tombeek bisu ah suura xuruju yunusa min al xuuti yunus jën wa ko wa inna yunusa لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المصحون فساهم فكان من المدحضين fal taqamahul xóotu wax mu lim nga xamante ne la tax mu génn mooy sàbbaal yam doon sàbbaal ci biir jën wi na fa lawla annahu kaana musabbixin la sunu borom moom kenn du ko jaay fulla moo ko tax a génnaat ca jën wa ba muy génn ba mu génnee nag mu ngi tombeek bisu ashura ginnaaw bi sunu borom daal di koy jéggal ci njuumteem loolu yi mu def moom sayyidina yunus alayhi salaatu wassalaam kada xuruju yusuf alkarim min jubbihi yusuf moom itam xamees na ne doomi doomi baayam yi dañ koo sànkoon tàbbal ko ci teen ngir iñaane ko rek ak soxre ko ginnaaw bi mujj na sax génn waaye nag ba muy génn mi ngi tombee woon ak bisu Ashura mu ne wa fiihi rafon dilon la idrisa mu ne sayidina idris alayhi moom ab yonent la te yàlla ci boppam moo ne wa rafaanaahu makaanan aliya léegi nag mu wax na bis bu koy yëkkati moom Idris alayhi salaam mi ngi tombe woon ak bisub Ashura wa rafa moom itam xamees na ne borom bi da koo yëkkati borom bi subhaanahu wa tabaraka daf koo yëkkati bis ba mu ko yëkkatee nag mu ngi tombé woon ak bisub ashura mu ne wa fihi aydan taaba rabbuna ala daawuda ci bisub ashura ci la borom bi subhaanahu tabaraka wa taala jéggaloon yonante yàlla daawud yonante yàlla daawud nag euh, lan mooy bàkkaaram bi ko sunu borom jéggal kenn xamu ko wala boog am na sax ñuy wax ay ñaawteef yoo xamante ne amul loolu mustaxil cib yonent waaye sunu boroom jéggal na ko bàkkaaram alayhimu salaatu wassalaam mu ne tamit ci bisu Masuura ci la ñuy woddu kaaba gi moom sëñ bi moo ko wax ci la ñuy woddaat maanaam yére yu bees yiñ ko yi ñu ko yiñ ko sàngee xam nga ne kaaba gi bu ngeen ko seetloo ay mbalaan yu ñu koy muure ci bisu Masuura ci lañ koy soppi woddaayam loolu yi ñu koy koddu mu ñu xamal ne summa siyaamu fanta bi lam yanxasir fii adamil akli faqat la taxtarir mu ne na ngeen xam ne koor koor takkuwul ci ñàkk lekk kese xam ngeen ne maanaam sama man ak ñi mel na man pour ñoom koor mooy bañ a lekk bañ a naan daa seet fekk na demewul noonu moo tax mu ne fa rubba saimin maa aljamaa laysa lahu fiihi mu ne bari waa na ku woor ndeysaan ànd ak nit ñi woor de waaye kooram googee lam ca am mooy xiif gi xiif xiif googu mu ci xiif daal moom am na ko ci bu dee sunu borom mu am sens bu ci fay bu dee sunu borom dana ci dana ci fay tiyaaba mu am sens bu dee sunu borom du ci joxe tiyaaba nag kon xiif googu la ciy am fekk na koor moom lay leeral sax moo tax mu ne fas sawmu an yuuma kullu udwi an kulli ma yufdi watan bi sax koor suñ ko waxee mooy biir bi ni mu wóoree xam ngeen ne biir bi fexe nga ba da fexe ba doo lekk doo naan maanaam doo ci tàbbal ñam doo ci tàbbal naan aw ñam bopp aw ndox bopp noonu yi ngay téewee mboolem cër yi ci des yépp maanaam sa bët bi nga téye ko ba doo ci xollu lu xaraam moo tax mu ne amsik anil nadari lil xaraami wal mashi was sami ma al kalaami wa kulli fikratin radiyatin kama maanaam sa ñaari bët yi nga téye ba doo ci xool lu xaraam say tànk nga téye ko ba doo ci dox jëm ci lu xaraam mu ne say nopp it leen ba doo ci diglu lu xaraam say wax noonu ak niki noonu xalaat bu ñaaw tamit nga do nga bañ cee xalaat lii moom xanaa day day day way la sayidina muhammad waxoon ne man lam yada qawla zuuri wal amala bi fa laysa lillahi xaajatan fi an yada taamahu wa sharaaba maanaam woor te koor gi nga koor doxul sa digganteeg di wax ay wax yu mu warantu ak di ko jëf di jëf ay jëfi kese sa koor googu yi yorante mi ngi lay xamal ne yàlla amul ci soxla sunu borom amu ci soxla mu ne wala tukathir suxuura wal futuur mumtali al batni fa tuxramal fa tuxramal ujur mu ne bul ne damay woor tey tax nga jug di xëdd nga lekk lekk lekk ba sa kollu fees wala boog dogu jot nga ne tey kat damaa waroon tax ci ndogu li nga xaw cee gaañ sa bopp mu ne loolu ëpp naa def li waral ma ëpp mooy dañ lay xañ yool loolu daf lay tax yool yi la ci sunu borom waroon na fay dëgg dëgg doo ko ci am mu ne wa kullu man amla batnahu taam wa akthara surba alayhi walmanaam fa innahu maa albahimati stawa id faatahu xayrun kathirun fatawa képp koo xamante ne kollam bi da cee da def aw ñam ba mu fees dell dell def ci ndox ba di ko nelaw nag kooku sëriñ bi nee na na ko wóor ne mook ay bàyyi ma ñoo yem mook may mu ne wa baaduhum yakulu aklul baqari waqta xutuurihi wa waqta saxari xatta yakunu batnuhu thaqila jiddan fa saara qalbuhu masgula am na ci nit ñi ñoo xamante ne ndeysaan bu ñuy lekk ci jamono yi ñuy dog dañu mel ne aw nag rek dañuy mel ne aw nag way lekk niki noonu bu ñuy xëdd dañuy mel ne aw nag nga xamante ne seen xol yi day mujj fees jàll diis gan nga xamante ne ndeysaan du bëgg lu may nelaw nelaw képp képp képp lay bëgg ndeysaan nga xamante ne du tudd yàlla du jaamu borom bi subhanahu wa tabaraka wa nag loolu day woote ne daa woor day woote ne daa woor te kooram du ci ame du ci amee lu toll ne fa tiil du ko ci am ci tiyaaba aadana min al gururi wa kulli ma yadurru fi duhuni mu ne yàlla nañu sunu boroom subhaanahu wa tabaraka wa taala musal ci waru ak lépp luy lore amin kon bunt boobu jeex na faslun fil wirdi amma ida jahilta sha'nal wirdi faalam bi annahu azimul qasdi mawqicuhu fi sharci min ajal mawaaqici l qurbi inda al kulli mu ne su dee danga réere mbirum wirda bu dee da nga koo mu ne nga diglu mu xamal la ko mu ngi lay xamal ne wirda de lu màgg la lu màgg mbir la te itam ëpp naa sàggane mu ne daal ci sharia daal su ma ko doon wutal place su ma ko doon wutal place ci sharia daal dama naan na mi ngi bokk ci jaamu yàlla yi gën a màgg ci la wirdu bokk mu ne wax xadduhu inda dawil ifaada shay'un murattabun min al wirdu du dara mooy looy saxar rek mooy loo xamante ne wóor mooy nga ak jaamu yàlla goo xool gis na lii man nga koo saxal nga saxal ko wutal ko waxtu mu ne fa kullu wirdin yuridul murida li xadratillahi walan yaxiida sawaun intama ila al aw intama li ahmad at aw li siwahuma min al aqtaabi id kulluhumu qataan ala sawaabi wird xam ngeen ne xeeti wird yi am bari na lool moom nag ñaar la seet fii ñaari wird la indi ci téer bi mooy wird bi ñuy askanale al cheikh abdul qadir al jaylaani yu ñuy askanale al cheikh ahmaduni tijaani radiallahu anhu mu ne ñaari wird yooyu boo ci jël doxal te am ci fulla ak fayda te saxal ko te xam ne maanaam mën na laa yeggale ci péeb suñu borom bi ndax ñaar ñooy ñi ma tudd ak ñeneen ñi ma tuddul sax ci gaa yi baax yi ñoom ñépp amul sikk ci ne lu baax ci lañ nekkoon ci diine ci diiney lislaam lañ nekkoon ñoom ñaar ñoo ñi radiyallahu anhuma mu ne fa kulluhum yad'u al muridina ila taati rabbil arsi mu ne ñoom ñëpp gars yi baax yi kenn ku ci nekk daraan woo ay taalibeem ci topp borom bi subhanahu tabaraka wa la waaye nag awee ko ci islaam awee ko ci ñàngaleem lislaam mhm. kon nag bul ci reetaan kenn bul ci weddi kenn reetaan kenn xam ngeen ne kii li mu wax daa leer bul ci reetaan kenn kenn ku mu mën a doon yow bul ko reetaan bu ko doyadal bul ko sabooti mhm. mu ne wa asluhul waxyu awil ilham wird lay wax yu lay doon wala muy doon ilham ilham mooy yenkeewal yu mooy lu la yàlla xamal te jaare ko ci malaayika te loolu defe naa ne yonante yi ñoo ko jogoo woon yenkeewal mooy loo xamante ne yàlla dala koo xamal ci lu ci maa xëy na lu mu tàbbal la ci sam xel nii rek tàbbal ko ci sam xol tàbbal ko ci sa kon mu ñu xamal ne kullu waliyin zu tashabbuthin abad bi zeyli man arsalahu alxaqul ahad wali yu yi ngeen di dégg yépp na ngeen xam ne kenn ku nekk ci ñoom dafa jafandu woon ci sëy ci mbiccum sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mu ne nag lépp li ngeen gis mu doonoon xar baaxu xar baaxu mu doonoon mujiza xar baax mu doon mujiza xar baaxu bu yonante loolu yàlla mën na ko defal ab wali yi ngir taralee ko ko ngir taralee ko ko ngir taralee ko ko xam ngeen ne siira danay jàngale ne sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndox ballee na ci ay baaraamam loolu wér la siira jàngale na ko sëriñ bu mag bi su ma juumul dama dégg ci benn borom xam-xam bu mag ci ñuy askanewoo ci murit mu wax ne am na ñu mas ñëw ci moom ne ko ñun kat dañoo xamut yonante bi ndox siira daa jàngale na ndox doon na balle ci ay baaraam ñu bëggoon a xam nu ndox mi doon génnee ci baaraamam ba mu génnee loxo yi di leen wan rek moom ci boppam ñu gis loxo yi day sant bëll ay ndox rahimahullah rahimahullah mu ne wal awliya adillatu tasxiixi li diinihi awliyaa yi ngeen gis ci diine lislaam loolu day gën a firndeel na diine lislaam dëgg la fu mu ndax ki nga xamante ne dafa ngoy ci diine lislaam ngoy gi mu ci ngoy gi mu ci ngoy suñu loolu tax suñu borom di ko defal ay karaama loolu day wane ne kon diine lislaam dëgg la day wane ne diine lislaam dëgg la mu ñu xamal ne nag anbiyaa yi anbiyaa yàlla mos a yónni ñoom suñu borom daf leen musal mënuñoo def bàkkaar ab yonent yonent yi yàlla mosoon na yónni yépp mënuñu woon a def bàkkaar ku ko ci bëggoon it sayidina yusuf alayhi salaam xam ngeen ne loolu moo ko musal ci ba kay ndaw sa di sàkku doon gi mu doon ab yonent moo tax moom mënutoon a def mooy yàlla googu mukk waaye ku dul ñoom masalan awliya yi ñoom dañ leen di sàmm nii rek dañ leen di sàmm nii rek waaye dabuñu anbiya yi mu ne wastaraka fi asmati rahmaani kama bihi nassa dawul dawul irfaani lakinnama asmatul anbiya waajibatun bi aksi mu ne mu mujj wax ne ñoom ñaari ñëpp nag la yàlla musal waaye musal gis sunu borom musal yonent yi lool lu war la bi aksil awliya awliya yi nag loolu doonul lu war doonul lu war mu ne lii ku ñuy wax siidil muxtaar moo ko wax ci téeram boobu yi ñuy wax alkawkabul waqaar ci la ko waxee sëriñ bu mag bi rahimahullah di wax ne wa in axastal wirda faltu bajjili umuurahu xayral mazaaya tanali xeeti wird yi am boo ci jël na nga ci am fulla am ci fulla mooy lan mooy nga mooy ko rek nga mooy ko loo ci mën a dégg nga dummuyu ko te gën a mooy ci sa wird te am ci pastéef te am ci pastéef moo xam wird wi yàlla feeñal wérd wérd du lu ñuy sos luy feeñ la rek loo xamante ne day feeñ ci loxoy nit li mel ni wird wi tudd wérdul maxfuus loolu du lu lu sos dafa feeñ maanaam yàlla daf ko jaarale ci sayyidina Muhammad mu indil ko sëriñ bu mag kon loolu du lu ñuy sos niki noonu it moo woo bu dee moom nga jël yow am ci fulla ak fayda loo ci mën a dégg it nga won ko ginnaaw te gën cee mooy bu dee wérdu wi yàlla feeñale woon ci loxoy sayidina sayidil ahmad tiijaan yi moom itam nga am ci pëstéef loo ci mën a dégg nga buñ koo faale cheikh abdul qadir yi wérdu wi yàlla feeñaloon ci ay loxoom loo ci mën a dégg bu dee moom nga ci nga mooy am ci pëstéef tam màggal ko mu ne ki nga xamante ne ndeysaan comme suñu mbokki wahabi yu ne yi nga xamante ne ñoom lu jëm ci mbirum wérdu dañ koo weddi mu ne ñooñu dañoo xamut dañoo réer ñooñu jamono ñu ne foo leen waxee wirdu woo leen mën a tuddal dañ koy doy dal lool di ko saboote lool di reetaan mu ne ñooñu sànn dafa zu jaxaala dañoo réer ab wahaab yi moom ndeysaan ak ak réer gu méttee métt da koo dal dafa xamut li gaal gi di riir moom dañu ñuy gaal gi di riir la xamut mu ne man lam yudim shay'an min al awraadi mubayyi al waqti ala tamaadi fala lahu yowma yujaaza annaasu illa garaamun wajawan wa baasu mu ne koo ci xamante ni amul benn wird ci xeeti wird yi am loolu daal moom suba ngoon guddeeg bëccëg day toog di xoole dana fexe daal ba juróomi juróomi juróomi julli dana leen julli bu jotee mu sànni rakkaa yi muy sànni dem tëddi léeg sax mu boole ci nag di dugg ci lu yoonam nekkut mu ne ku mel noonu daanaka na xam ne ëllëg yowmal xiyaam la mu la mu fay du ca am dara lu dul aw naqar ak njàqare ak yi ay mu ne wird sax nag képp ku nga gis mu koy woyafal ak di ko saboote ak di ko weddi ak di wax naan biddaa la ak du bidaa mu ne kooku na ngeen xam ne ku iñaan la ku soxar la mu ne fa kayfa yustax fa kayfa yustaxqaru zikrullah adaamahul fata bilaatana mu ne moom sëñ bi li ko yéem mooy naka la nit ki mën a xeebe aw tudd yàlla wu nit ki saxal maanaam tudd yàlla woo xamante ne yow danga koo saxal wird du dara lu wird istixfaar lay doon hayla la ak assalaatu ala nabi koo xamante ne ñett yi la saxal ak kii quelque muslaay muslaay yoo xamante ne mooy dox ci diggante digganteem ak seytaane ak jinne yi yow nga mën a ñëw di ko ko doyadal naan biddan la loolu moom sëñ bu mag bi du ko yéem ko yéem ba yéem ko dara nekkul mu ne fa kullu man lam yata addab zamana ala yaday cheikhin fa yalxaa mexana mu ne képp koo xamante ne maanaam ki dem amul sëriñ amul ab sëriñ kooku na xam ne dana daje tiis wu méttee méttee méttee li anna man adima cheykhan mursida fa cheykhuhu mu ñu xamal ne ki nga xamante ne amul sëriñ kooku na ngeen xam ne iblis mooy sëriñam koo xamante ni amul sëriñ seytaane ci boppam mooy sëriñam mu yëkk ak mu ñàkk koo yëkk mu neex ko mu ñàkk koo neex ma xam ne moom seytaane mooy sëriñam fa in kasilta an umuril wirdi fala turim in kaaraha lil xeqli mu ne yow wahabiye bi nga xamante ne danga tàyyel ci mbirum wird bul bul bul bul kii bul bul bul bul weddi bu fekkente ne yow gëmoo wér di rek maanul moo gën waaye bu ko géem a weddi mukk mukk mukk mu ne fa in ajasta an wurudil mawridi mu def fekkee ne yow wahaabiya bi dangaa tële ci root ci leeru sunu borom mi subhanahu tabaraka wa taala nga gis xaadim jóg moom di di root di root ci leeri sunu borom bu ko gàllankoor bul ko yàqal wax dëgg yàlla boo koy wedd yow toogal rek mu ne wird yi nag seen yool mi ngi nekk ci kem wird wi nga jël wird wi nga jël doole ji mu am rek ak ni mu am ci ngeneen ngeneen lu toll mu mel na ne xeeti wérd yi mas am ci duniyaa wird bi ci ëpp doole mooy wérd wi tudd al wirdul maxuudi min bi wasitati rasulihi mboolem xeeti wird yi ngeen am yépp nag wird woowu moo ci ëpp doole moo ci gën moo ci gën a riche moom la Serigne Bassirou Mbacke wax ne moom la Serigne Bassirou Mbacke wax ci ci téeram boobu ci Minanul Baaxil Xadim nu mu ko waxee di sax hmm. <laughs> fàtt naa bayit ba de waaye dene maanaam mbooleem secret ya nekkoon ci wird ya ko jiitoon yàlla daf koo dajale ci wirdul maxuusi min allahi bi waasitati rasul boole ci nag am loo xamante ne wirdu yooyu sax amako fa jamaal kulla wa zaada wartaqa noonu la ko waxee fa jamaal kulla wa zaada wartaqa bi muxkamil kitaabi nicma murtaqa fa in axasta wirdahu axasta wirdal jamici laa taxaafu kapta mu ne mbooleem la xeeti wirde yële amoon mi dafa dajale ci wirdu bi dafa koo dajale daf koo dajale boole ci nag am loo xamante ni wirdu yooyu sa xëy na amuñu ko mhm. mu ne faslun lii ab dog la fi dikri ci tudd yàlla day waxtaane tudd yàlla ci boppam mu wax ne faslun lii ab dog la fi dikri ci tudd yàlla amma dawaamu dikri fa huwa akbaru min kulli ma kaana almuriidu yukthiru qad qultu dalika bila israari wala ubaali bi dawil inkaari mu saxal tudd yàlla tudd yàlla nga saxal ko kooku moo gën a rëy ci lépp lii ab taalibe di saxal lépp lii ab bi di saxal rek tudd yàlla moo ko gën a màgg moo ko gën a riis moo ko gën a foor mu ne loolu dama ko wax te làqtuwuma ci tey itam duma ma faale kuy inkaar koo xamante ne wahabiya bu toll fële dama inkaar nee na du ko faale wa kullu man sa'alani fa lii jawaab qabla wala tujaadilu ahlal kitaab képp ku ma laaj saw lay ana lan mooy saw lay dama naan la sama lay mooy laaya ba jiitu wala tujaadilu ahlal kitaab ban laaya moo ko jiitu wala zikrullahi akbar aywa kon ab murit dafa war a am ab dog ci kii ci tudd yàlla bu muy def ginnaaw ba mu defee wurdul maxuus nag ba noppi war ci tudd yàlla yi yeneen xeet tudd yàlla ji des mu ne wa qultu man taraka zikrallahi li zikri xayrihi fa xumrullaahi mu ne képp koo xamante ne dafa bàyyi zikrullah ngir weddi ko ngir weddi ko waaye nag bàyyi na tudd yàlla waaye mi ngi tudd leneen mi ngi fàttali ko leneen mu ne kooku da ngeen xam ne ab dof la ab dof bu mag fa kayfa yansa aw yu xaafilul wara la ab a sàggan naka la ab fa kayfa yansa aw yu xaafilul wara dikra alladi mu ne mbindeef yi naka lañ mën a fàtte wala ñuy sàggan ki nga xamante ne moo leen bind te nii ñu mel moom moo ñu ko melale yàlla mi nga xamante ne moo ñu sàkk def ñu ay doomu aadama ñoo ñun ñu teg ko fële di fàttaliku leneen moom sëriñ Bàmba loolu da koo yéem lool da koo yéem mu ne wa annahu bidayatul wilaya wa tarkuhu nihayatun xawaaya mu ne dikrullaahi mooy taamlimaawu wilaaya waaye bàyyi tudd yàlla nag mooy jeexintalu mbewte fala ak mbewte yam jaalallaahu min alladina daamu bi fikratin alayhi lxiina mu ñu yàlla nañu yàlla boole ci ñi nga xamante ne jamono ju nekk dañuy tudd yàlla xam nga ne jëmmi tudd yàlla sax maqaama la ci xeeti maqaama yi am innal muslimina wal mus maanaam ñi nga xamante ne ñoom la yàlla dig àjjana maanaam ñi yàlla dig àjjana ñi tuddkatu yàlla yi dañ cee bokk tudd yàlla kay tuddkatu yàlla dañ cee bokk mu nit bu ñëwee jébbalu suñu borom dig na ko àjjal moo xam góor moo xam jigéen la ki gëm yàlla suñu borom dig na ko àjjana dégg nga ni ki noonu it jaamukatu yàlla yi suñu borom dig na leen na ñii saraxe suñu borom dig na leen àjjana mu daanalee ko ci wa zaakiriina allaha kathiran wa kon ku ngeen dégg muy toll fele naa la yow ni ngay def ci tudd yàlla dafa ëpp ak maanaam xadis da ko nangam di géem da lay géem a indil ay xadis naan la ni nga ciy def ci ak lim dafa dafa dafa bëri te kooku bi yoon ne dong ci nañ ci gën a seetlu na ko teg fële mu ne wal xulfu fi l israari wal ijhaari bayna al mashaayixi al kiraami jaari dañoo wuute nag ci booy tudd yàlla ban anam moo ci gën anam bi ci gën mooy nga yalu ko wala bu ci gën mooy nga béral ko kooku dañ cee wuute léegi ñi nga xamante ni ñoo gënal yalu gi ñuy wax na booy tudd yàlla li ci gën mooy nga yalu ko dañuy bëgg nga gën a sori ci ngistal nga soriyante ngistal bu baax a baax a baax ak itam nga concentré wu ci baat bi nga masalan ki jël baatub laa xaw xawla wala quwwata illa billah jël baat boobu di ko su subaak ngoon guddeeg bëccëg léegi nag da da ba tëdd gi maanaam ba li ci gën nag mooy ngay teewlu li ngay wax baat yi maanaam nga focus ci baat bi laa xawla wala quwwata te saxal ko nag ba mu jaxasoo ci sa deret nii xawma lu ko ëpp solo mu ki ñii ne déedéet li ci gën daal mooy li ngay wax nga béral ko ca kaw li tax ñu bëgg mu bëgg nga béral ko nee na mooy masalan bu dee dangaa toog ak ku mel ne man boo tudd boo jékkee-jékki tudd yàlla wala nga mu séen la nga yor sa kurus di kocc-koccal moom itam day yëg ne moom itam war naa man a tudd yàlla tax mu daal di rocc ab kurusam nang commencé nag di tudd te kooku day baax ci yow lool lool lool lool itam jamono yi ngay tudd yàlla ni ciy làmm bi di amee cër sa nopp yi da ciy am cër ndax mi ngi dégg li ngay wax kii bi da ciy am cër mhm. mu ne tudd yàlla dafa am ay teggin tudd yàlla dafa am ay teggin teggin bi ci njëkk mooy fi nga toog tudd sunu boroom na doon place bu laab nii na doon barab bu laab boo mënee jublu xibla it moo gën ba nopp ferenkulaayu ferenkulaayu wala bokk nga pooju pooju xames na ko yaakaar naa comme mooy booy julli rek ni ngay toogee toogee yu mel noonu nga toogee ko ni ba noppi xeeñ lu neex nga xeeñ lu neex kooku ci teggin yi la bokk ndax ja fi nga toog waa comme ni nga toogee noonu mu wax ne fi nga toog nii di tudd suñu borom subhanahu tabaraka wa taala loolu du ñàkk ay malaayika ndax xam ngeen ne malaayika yi ñoom barab bi leen dàqal mooy fu ñuy tuddee yàlla comme ni ngeen xamee ne soyaatiin yi soyaatiin yi ñoom barab bi leen gënal ci barab bi mooy fu ñuy fajee aajo lu ay war ak mhm. te comme yow yaa ngi tudd yàlla na la wone fi nga toog nga yëg kook nga ñàkk koo yëg ay malaayka ñu ngi ci sa toog di la diglu ni ki noonu jinne yi nga xamante ne dañoo gëm jinne yi nga xam dañoo gëm te sell te baax te lu baax ñor leen ñoom itam jamono yi ngay tudd yàlla dañuy toog ci sa wet ndeysaan moo xam ngay jàng alxuraan wala ngay jàng lu nuroog alxuraan dañuy toog di la diglu parce que loolu dañ koo soxla loolu ngay jàng noonu bokk na ci teggin yi ba tey mooy baat yi ngay sikkar bul ci rax dara maanaam baat yi ngay sikkar nii bul ci rax dara maanaam toog yor sa kurus tudd yàlla waaye nag nga ci nga ci rax ay caaxaan ak impo daal loolu dañ ko taamuwuñ ko mu ne yow mi nga xamante ne yaay soog a tàmbali nag mu ne baat bi gën ci yow mooy laa ilaha illa waaye nag ki nga xamante ne sori na ci yoonu tasawuf baat bi ci gën mooy allahu allahu mu ne nag baat boobu yi li mu làmboo li mu ëmb ci ay secret li mu lëmb li mu ëmb ci ay secret kooku yellut ñu di ko ñu di ko ñu di ko wulli fii ñu di ko feeñal ci téere bi mu ne daal baatub laa ilaha illallah lim làmboo ci ay secret ak i mbóot li mu làmboo ci secret ak i mbóot daal ku ko bëgg kooku da ngay pase àdduna pase gu bër mooy wan ginnaaw àdduna wër wan gu bër mu ne daal laa ilaha illallah baat yi mu làmboo baat yi mu ëmb nii ah ngir nga mën koo am sax dangay jàkkaaloo ko sëriñ mu joxal la ko boppam mu joxal la ko boppam mu ne it bokk na ci liñ ko mën a amee mooy jébbalu ak di jaxaaranteeg sa bakkan waa nag deesu ko amee ci mooy di weddi di weddi awliyaaw yu baax yi comme ñi nga xamante ne ñoom la ñu waa ay wahabiya ak di sorowanteeg gaa yu baax yi ngir weddi leen ak di leen diingate ko kurite kooku moom mooy loolu bokk na ci liñ ko mën a amee mooy wuuteek sa bakkan ak sa bànneexu bakkan te itam nga bañ a xeeb kenn kooku lu am solo la léegi nag xeet yàlla yi nag mu ne bu ci gën balaa dara xew mooy nga seede ne amul benn buur budul yàlla sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam borom bi moo ko yónni woon te lu yàlla bind moo la gën ak koo mën a doon ak noo mën a toll ci bëti nit ñi yonent yi moo la gën du sa morom kooku da nga koy gëmaale ndaxte baat boobu nga tudd ko mooy tax nga tàbbi aljanna moo lay tax tax tàbbi aljanna mhm. mu ne baat boobu daal na la ci doy sëkk sëkk mooy doon gi mu doon passeport wala boog njëg njëgu aljanna njëgu aljanna bu ñu na ko laajee mën nga ne rek mooy seede ne amul benn buur bu dul yàlla sayyiduna muhammad yàlla moo ko yónni yàlla moo ko yónni mu ne baat boobu war na la cee doy sëkk képp ku ko séeriwul maanaam képp koo xamante ne séeriwul ne amul benn buur bu dul yàlla sayyiduna muhammad yàlla moo ko yónni kooku amut aw lay ci kanamu borom bi subhaanahu wa tabaaraka wa taala mën a ngooy ngir mën a tàbbi aljana kooku amut ko mel ne ay ëboo jeexi nag yooyu mhm. mu ne képp koo xamante ne daa tuddoon baat bi ba ci yàgg wàcc ko maanaam murtat wal iyaazu billah kooku des koy rey mu ñuy limal mu ne bokk na ci xeeti tudd yàlla yi am mooy basmala basmala mooy lan bismillahi rahmaani rahim na ne maanaam am na soxna su ko fonk lool ndeysaan bismillahi rahmaani rahim da ciy wax ay lim bu takkoo takkoo takko ni ki noonu xawqala xawqala mooy lan laa xawla wala quwwata lu am solo la takbiratan mooy di sikar allah akbar kum neex mën nga jël baat boobu baat bu gàtt la sax nag allahu akbar allahu akbar nga wutal ko lim bu bëri niki no auzu billahi min asheytaani rajim di ko sikkar moom itam am na solo alhamdulilah sikkar ko am na solo salaatu ala nabi sikkar am na solo xasbala xasbuna allahu wa niamal wakil am na solo istigfaar moom itam am na solo yaa rabbi igfir lii ni surtout boobu mu ne benn bu nekk ci yi mu tudd nag benn bu ci nekk am na ay njariñ yoo xamante ne moom doomu moo ko am moom dong moo ko am mu tàmbalee ko ci xëyla la xëyla la ki koy sikkar lim lay jural mooy nga yëg kenn ak sunu borom bi subhaanahu wa tabaaraka wa taala da musal ci ngay bokkaale yàlla ak dara mbaa lenn mhm. niki noonu it di wax allahu akbar allahu akbar ak alhamdulillah day tax ngay teew teewlu màggug yàlla day tax ngay teewlu màggug sunu borom subhanahu tabaraka wa taala ci sa xol ak itam day tax sa yaakaar gën a dëgër ci sunu borom day tax itam nga gën a sopp sunu borom mu ne laa xawla wala quwata illa billah ak xasbunallah di leen sikar seeni njariñ mooy day tax nga mën a wëkkeerlu ci sunu borom sa mbir yëpp nga joyal ko ci sunu borom julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa li muy jural nit ki mooy day tax nga sopp yonante bi sopp gu tar day tax yonante bi sallallahu alayhi wa sallam gënal la kum mën a doon mbaa lum mën a doon moom doo ko teg kenn doo ko teg ci kaw maanaam doo foog kenn di ko teg ci kaw moom di ko xalaat nii sax daanaka ëpp naa def di jéem a jël kenn di ko jéem a dóor ci kaw yonante bi loolu moom daanaka ab dof ab dof ba doppooral mooy def li mel noonu mu ne saxoo istixfaar nag di saxoo istixfaar lim lay jural mooy istiqaama daf lay jural istiqaama mu ne nag ngay xeeti njariñ yi yëpp am na benn baat bu ko boole te mooy laa ilaha illa baat boobu yi mooy mooy doya mooy doya gi mu ñu xamal ne nag waxtu suba ginnaaw boo jullee suba ba noppi nga jàng bismillahi rahmaani rahim fukk yoon yoo xamante ne yoon wu ci ne danga nga cay jokk laa xawla wala quwata illa billah masalan bismillahi arrahmani irrahim wala xawla wala quwata illa billahi aliyil azim mu ne da génn ci say bàkkaar comme ni la sa ndey juree woon xam nga ne nit ki buy buy gën a àdduna maanaam day set wécc wécc wécc amul benn bàkkaar bu mu def noonu ngay mel da set wécc te su boobaa yàlla dana la jañal dana la ja dana la jañal juróom-ñaar fukki ñaawteef ak ñaar yu la yu la waroon a dal yoo xamante ne ya ca gënoon a suufe mooy gaana ak ndoxum sit te sunu borom da ci yem waaye da ciy boole limal la juróom juróom-ñaar fukki malaayika yu lay jéggalul sunu borom subhanahu tabaraka wa la kon defe naa mën na maa tënk foofu macha di ñaan sunu boroom dafa ñu dégg ak topp ah bon